ndekkete Sénégal bari na ay logement yu rafet te bakkane lii de moom xaw ma ko woon kon dafa mel ni Proximeville mi laay sénnee ñoo fa jaar kay yaañ yii daal ñoom rek ko mën moo tax nag zone yi mu leen jël indil leen ko di ay zone yu bakkane ca diwaanu Bambilor ca diwaanu Lac ca diwaanu nag Diamniadio rawatina ca Touba Mbacké yii yëpp ci ay zone daal deme ñii nii la ñu ko nar a faram fàccee muy ca diwaanu Bambilor am ngeen fa lu toll quarante 40 villas ci type F4 52 villas standing ca diwaanu Lac Rose nag résidence la Dior la laa lay wax 32 villas R plus 1 standing 64 appartements standing ci 95 mètres carrés résidence Belel City nag moo nekk ca diwaanu Diamniadio 76 appartements ci type F3 ak F4 standing F3 bi toll nag ci 32 appartements F4 bi 32 appartements waaye deux immeubles plus 8 de ma ne la rez-de-chaussée bi di F3 Touba Médinatoul Nasr City nag foofu nag mooy daj dëgg gi ndax 444 yi ñu prévoir ci six parcelles yoo xamante ni viabiliser la lii lépp daal duma wax lu dul jox la seen adresse ngeen jokkoo ak ñoom ngir mën a am bépp information Proximville daal ma nga nekk ci Ndakaaru fa nga xamante ni mooy Nord Foire Diacksao adresse bi nag di villa numéro 721 jokkoo leen ak ñoom ci 77 645 53 31 mbaa ngeen def 77 749 53 10 kër daal képp koo xamante ni bëgg nga mu am kaaraange Proximville daal daal ñoo ma ca